asalaamaaleykum ahlu muslim al azam sekk bu Dakar ñëwati naa ci histoire aaxiru samaan ci biir Sénégal ci territoire bu ne muy dem ba Congo Gabon dem ba Espagne Allemagne réew yi àdduna yëpp mu di ko wër doo xëy dëggu yàlla ci alxuraan islam li araam ak li dagan doomu adama bu jaamu yàlla day war a xam araam ak dagan xamu leen dara araam xamu leen dara lu dagan. lu leen neex dagan na lu leen naqare raam na njaaloo bi bari lool ak fen yeg rambaaj yi ngeen di warante di defantalu ñaaw defantalu bon bañ ku leen ko wax yàlla ni borom xam-xam yi wax leen bu ngeen waxut ba dee yéen laay lëkkal ak jaanama inna sikku laay tanfa'ul mu'minin fa sakkir inna faati sikra say sakku man yax saa addis ba ni sikkuru laay mooy yërmandey doomu aadama mooy njariñul doomu aadama kon bu ngeen bëgg di dem àjjana bëgg a dugg ci seen gaalu ko àjjana bu waram ragal leen ko gëm ko li mu araamal ngeen ba ko li mu daganal ngeen def ko yéen yatta doon ngeen def diine julli koor dem makka jeema te yàlla ne julli du teemal ak kala sawara koor du teemal ak kala sawara dem makka du teemal ak kala sawara am na ñu juddoo makka yaroo makka dee fa makka bañ leen suulee ñu nga sawara am na ñu jóge fii dem makka ne yàlla bëgg a dem makka di fuñu ko ni alal joraam du dem makka alal sàngara du dem makka innal maali saarixu alal joo sàcc du dem makka alal jirim du dem makka alal boo ko bàyyee ci tool ne tooka saka du dem makka te lu neex ngeen def ci dem makka ngóor jigéen dem makka jigéen jomu jëkk di dem borom alal joraam di dem jaaykatu sàngara di dem nga gis nit rey nit nangu alalam dem makkatal mu kaam ab jirim baayam dee wala ndeyam bàyyi alal mu sàcc alal yóbbu ko makkatal mu kaam yooyu ay makk yëpp sunu borom ne ngelaw la duma ko fay yéen a dégg naa ngeen ni ku dem makka dem àjjana yàlla ni damay bañ makkatal mu am na borom booy dem makka di jigéen amal ñeen fukki at ak juróom benn yu mat booy dem makka di góor amal juróom fukki juróom ku am juróom fukki juróom war ngaa ruusoo mooy yàlla ku am ñeen fukki at ak juróom benn di jigéen war nga mus war ngaa yàlla waaye doomu aadama du xam loolu weex tàll ak bi jaaw di mooy yàlla réew moo dem ma nga fa Sénégal la jigéen amoo jëkkër ngay jigéen bëggoo jëkkër nga jigéen jongoma lool taaru ku la takk nga lank nga départ Sénégal ni makkatal mu nga jëm yàlla ni boo dikkee duma la nangul dangaa tukki waaye duma la fay ndax yàlla nee na jigéen balaa am diina am jëkkër yaa ayyuha annaas ittaqu rabbakum lazii xalaqakum min nafsin waahidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa ngeen lank ak ndaare ulamaa yu leen luxutaab yu digal leen ngeen lank biiral baa ngi bari ba mel ni xar biir ak ki bëy ak ki fas kër gu dugg Sénégal biiral la nga fa koo biiral nga tag ko ko sëy ba du dagan soo ko biiralee teg koo ko moon ndaw su ba dina dootu jur ñetti doom dootu jur waliyu dootu jur yonant dootu jur loxotaab dootu jur abidin ku baax sax ku ñuy soow dootu ko jur te yàlla dani dama leen a tere njaalo tere leen du bon tere leen aw fen nu mu leen ko waxee ci alxuraan yaay wàllu si na amanoo laa taqarabu hoo bu leen jege si naa njaalo loolu nag weer fees na jamono léegi jigéen bëggatul jëkkër góor bëggatul jabar te kon boo jaar ngénte yaa ngi si xale bu góor boo ne takkal mu ni jabar day estondi nit jigéen joon nañ la takk mu ni jëkkër baaraas la yéen kay kon yéen a ngi ci gaali bakkaar yi te nanguwul yéen a toog du yéen toog suuf yankew xale bu góor boo gis jongoma ji fanaan la bëgg te du ko takk jigéen doo gis góor gu mu fanaan la bëgg te du ko takk kon kay bu ngeen ne mu mi réewam diine diina diine ja dafa am ñu ko am am ñu ko amut doomi sëñ Tuubaa am na diine ab sëtam am na diine doomi Alaaji Malik am na diine ab sëtam ak ku yar ak ku ñu defar ci Tuuba ak Tiwaawan am nañu lislaam waaye ponkal moo xam ne xamul farata xamul sunna di ponkal mu day ni bàyyam nangu la takk jabar nangu la am lislaam bu ko may ak maandu amul benn xale bu góor bu mën a toog ñeen fukki guddi laalu jigéen amul benn xale bu jigéen bu mën a toog fukki fa juróom laalul moromam loolu moom ma jaaxal man ci islam bi te yéen di wax ay jullit ngeen yonent bi nag nee na ku biiral jigéen teg koo ko di dem sawara ndaw sa dem sawara doom ja lu mu jaamu-jaamu yàlla du dem màjjana du dem sawara raaf lay dem téeni ngi nii amul kenn ku nangoo takk da ngay biiral jigéen ñu ni gannaaw biir na nañ ko ko may yàlla ne maa ko tere jigéen ku ko biiral teg ko ci kaw biir di nga dem sawara jigéen boo ko biiralee moo ci ndu tur der ñu may la ko ilimaan jara ko doon may la raaf koy tabbal doom ja lu mu jàmm-jàmm yàlla moo ngi day jaag baay ba du ñu dem àjjana lu tax ngeen di biiral nag yonent bi ni ku biiral jigéen amoo jabar nañu la dóor téeméeri yar assaaniyatu wa saaniya fasjudu kullu waahidin ni atu jaldatin léegi nag bu ngeen biiralee da nga naa ginnaaw biir na nañ woote waxtaan waxtaan amatul foofu yàlla dani teg leen alxuraan si mu atte woo nañu dóor ndaw si juróom-ñaar fukki yar dóor waa ji téeméeri yar Sénégal nag amul benn dëkk buy dóor dóor yoon xanaa benn dëkk cene ba boo biiralee ñu ne gannaaw biir na nañ woote waxtaan bàyyi Mor Ngom nijaay Baara Jaw bàyyi ma samb Dégén nijaay Mor Xuma nijaay Ibra Fall ñu daje la waaw lu ngeen xam ñu ne ah gannaaw Mor a tooñ day Mor tooñu Nogay a tooñ Nogay ñu moom bindam waram jëkkër ndeyam ak bàyyi war ko may may ko mu dugg néeg Njaga Jaw wala mu dégg dugg néeg Omar Fall mu xaw ko rey kooku kay moo tooñ jigéen daawul fekki góor bu jëkk léegi jigéen daawul doxaani waaye léegi jigéen ñiy doxaani da ngay defar sam néeg jënd sab lal cent mille jënd sa ngeganaay jënd sa télé lal yépp teg dégg nga mam amoo jabar de waaye ndeela day ñëw ami ñëw xujje ñëw màggat ñëw ku dikk nga dóori dal ba sa xol sedd mu dem yoram sawaa nga may ko sawaa doo ko may bu la ndaw si jekkoon ak sàcc ndax càcc gi moom bari na waaye yooyu yëpp yëfi yëfi nit ku naafeq rek la yëfi ku dul julli lu araam li ngeen def bu ngeen ko bàyyiwut bu leen bëggee dem àjjana te ni ngi ni que murit beeg tiijaan bi xaadir bi ñëpp ko wax mu ni damay dem àjjana mel ni àjjana sa bàyyi ko moom yàlla tabax àjjana moom ko ni ko maa ko moom jaamu leen ma lu ko taat yi li ñuy teg kenn daju ko ñu ngi tëdd yëngoogut sëñ tubaa ma nga tëdd tubaa yëngoogut alaaji mal tëdd taan yëngoogut limaamu laay yoof sëriñ cana ba cana ba buuku na njaasaan bàyyi ñes kawlax seexu fall mi liggéey ba gar bi wax rasulullah mi gën ku la bind ma nga tëdd madina junniy at ak juróomi téeméer walbati koogul nun nii nan rek di doxaan njaalo bu ni leen di ko def sa jabari morom nga war se jabari xarit nga war sa jabari mag nga war sa jabari nijaay nga war sa xaritu benn bakkan takk jabar dem États-Unis wala Côte d'Ivoire wala Congo wala Gabon nga ne ñam ba mu biir ñu naan ñu ko nëbb te yàlla moom nee na lu ma gis lu araam péncam yàlla lépp lay àtte fi yéen kanam man xaw ma nan la yore jigéen moom fukki at yu man ki ñett ngor ko bam ñaar fukki at ak juróom nit di nawleem tukki penku yóbbanteelu téeméeri junni ñi may naa ko fukki junni may gu jëkk wala ñaar fukki junni nga jox ko may ko jabar takkal ko defal ko lépp mu di këram nga di ko jox jigéen joo xam ni ji njaga joo xaw na ko rey wala daam ñi ngi mbay faal wala Omar Njaay nga jox ko ko nag moom mu yor jabar moom mu yor jabar saa bu tukkee jabar ca gàddu dàllam damay seeti moor di damay seeti ngañ di damay seeti demba wala mu ne maa nga jëm ndakaaru Sandaga laa jëm Sandaga nag moom mooy capital musiba mi sagar yi caga yëpp ak sagar yi naafeq yëpp fu waay xëy rek ne Sandaga te boo demee Sandaga kat ña fa am fulla ñoom ñu nga yor seeni taabal di jaay yenn càgga ja nag ñu nga waree def xotti taati neen ponkal mu day ni ndeem war a sol tubéy ju baax jigéen bu njëkk aw awraam daawul feeñ waaye léegi jigéen ñi ku la gën a jong ma ñoog ba yeeg xar nag yem moo tax benn góor xemmamatu leen jigéen kay daal daa romb yor garam bu wala robb wala marinière bu jot sol aw dallam mu suuru romb la yor mu soir nga ne xàkk sa caay waa ji jigéen moo moo rafet nu mu def waay waaye jigéen joo xam ne ji dana rattax mel ni góor ñaari xel yu góor yu ànd mooy ñaari jigéen yu ànd léegi jigéen ju la gën a jongo ma gën la di xott taat nangoo tula sol mbubb nangoo tula sol ab sér dootu waddu day def pantaloo daal taat bi ni fàttu fàttaral da ko yor mu dox ba mu ñaq tooy mu dox dégg man diroga la ci tànkam ku nit di xool nan tey waa ji ndaw si li mu sol ni mu tilime ak ni mu ñaawe yu bon yooyu nag ngeen bëgg di ko def moo tax doomu aadama yi dara mën na ci la tax si lam dugg seeni nopp ñoom daal ay fuural ak ay xumbal ak yu bon yu ne lañ ko wax rajo bi sax nu leen lañ ci wax loo xam ni lii dafa ñaaw te doomu aadama yaa ngi koy wax ci rajo bi taman léeg-léeg ma dégg ñu a oustaz Seck li muy wax moom waru ko wax am na lu gën a xaram li may wax gën koo ñaaw ngeen di ko wax yëkkatil sa tànk ma xool sa pointure loolu mooy lan loolu kay taatil leen i jàmbur nga bëgg a xool naam ba ak naam moo di jaw laajal xale bi fuy metti na fajal ko ko bu mettee bu ko fajee mu munu koo faj nu muy def yu ban yooyu ngeen di def nag ak di ko wax man maa ko wax di xulul islam ku feebar da dem hôpital te médecin ba ne ko sa bopp day métti may la doom sama ndigg day may la doom saak faar day métti may la doom wala saab tànk may la forote waaye fuy metti ma fajal la waaw boo ko ko fajalee boo mettilee kan moo lay fajal yu bon yooyu nag ngeen di bañ ku ko wax dama koy wax am na leneen lu ngeen di wax yu bona bona bona bon su góor ñi jigéen ñi jigéen ñi moom suur na lekk lu bon rek lañ bëgg boo leen naa la takk ñu naa ma dooma takk de yow kay dikkal nu pourcent ba ca kanam rek di nga dikk di pourcent rek waaw sa morom dikk di pourcent bu ñu pourcent nag dégg nga maam ba mu siibaam nag dañu xool yambar ma gën a nooy bopp man gis naa ci benn koñ xale bu yéen boo xam ne bii ay tubaab rek la bëgg bëggu tu ku ñuul ba benn tubaab biiral ko tukki dem yoonam mu biir nag daal di woon ak Omar Fall daal ko ni man xool naa dëkk bi te yow dong yaa ma ci bëgg bëgg gi ma bëgg kenn bëgguma ko mu di ko toog ak moom mu toog mu ne ko man damaa gis reekal seen neen waa ji def ni wax na dëgg mu dal koy bàyyi am ñaari fan ñetti fan weer munu ko damaa xëmb te fekk na mën a ñaari weer ak weer yu mu ñetti weer bu mu toogee ba am juróomi yenteel ba ku fukkil mu ni mu xëy da nga ma am doom tubaab tubaab boo xam bët yaa ngi weer weer yi mel ni bëti muus kawar gi dee weer weer yi lar lar gi di nga mel ni kawar ak fas da ngeen kooku boobu doom boo ma ne yaa ma diiral te du man du ma wut aw yet dóor la ba ngay bëgg a dee wala man la du ma la ngénte yu bon yooyu ñu bëgg nag dañu dul bëgg seenam nawle bëgguñu ko ragal yàlla bëgguñu ko jàngal xuraan bëgguñu ko gëm xam-xam bëgguñu ko sëñ Tuubaa bëgguñu ko lay jumal dafa bëgguñu ko am lislaam yambar mu leen di nax la bëgg damay dem France Congo laay dem damay dem New York Italie laay dem damay dem Espagne wax dëgg yàlla koy dem Espagne kay te bu dikkee ba ba may dem du ma la may cent franc du ma may say téeméer du ma la jëndal attaaye boobu dem dem Congo boobu dem Congo da man sax ma dem jam ñaar tam lu ma lay jox moom ma gënal waaye naafiq yooyu ñu nekk ak monsieur bu nekk moom lañ leen di naxe te loolu li koy fay kan mooy lan doomu aadama yi nañ ci torox te ba yàlla jéppi leen goo xam ni lu ñu yor mu yàqu al ju yor du barke lépp ay seey wala nga feebar di ko fajoo ba dee wala nga war àll ñu sàcc ko wala nga xëy mu lakk wala nga xëy am gan goo xam ne xamoo ganat lu mu mu di ko tuwaañ yeenu dem yoonam nga naa sama gan ga fekk nag alal jooju dee alali aram ci wax mu koo lekk te doomu aadama kat mënu ko wax dara lu xam am fu mu koy tollare ba dugal ko ci diine loo ko wax mu dugal ko ci naqaram dugal ko ci xolam di la jéem a jéppee ka jéem a xas lislaam dafa bëgg lu leer bëgg lu rafet bëgg lu jag kon ko ci ne nga koo bëgg xoolal jigéen ñi fi ne ak góor ñi bon bon yu ne ngi ci biir barka démb benn xale bu jigéen bu benn waay ni dama laa bëgg mënu ko maala raw ndaw sàngee benn portable boo xam ni deux cent mille yu manque lay jar waa ji dugg seen kër ndaw semu dara yaay jëmu dara fexe na baaw faram jëndal ko portable am naa faraw boo demee daa bokk ci borom xaalis yu bari yooyu sëpp ndakaaru wala fenn rek ndoxaan ko jëndal ko portable boo rajar ay cent cinquante mille wala ay cent vingt cinq mille waaye dikk ni ko dama laa noom ndaw si nangu mu daal di dindi diggamam dix mille franc ni ko toggal añ demee gee ku la toggalu dix mille franc te du joxe ay ñaari téeméer kooku amul lum nar nga daal di fob ñaari junni dem marché nag koobar koobar yi nag defe na yaa ci nga jël li nga jël lépp wa nga dikk waa ji ni la junni ngoog defara koñ bi nga toog ak moom mu toog ak yow laataa ñu noppi mu dóor lay dàll ngeen añ mu dóor lay dàll ba cinq heures départ sa portable dem yoonam sàccante boobu yi ñuy defante mooy yàlla ji ñuy def tàll yi ñu am daganut du ñu ko amee nu dagan du ñu ko amee nu rafet bàkkaar yi ci mu suba yooyu lay dugg moo tax jamono bi léegi ñëppay sàccante ñëppay warante xale jigéen yi xale bu góor bu leen woo seen néeg ñu dugg ci néeg ba toog xale bu góor ba génn dem duus wala mu dem bitig balaa dikk mam nu mu ko sàccal denc ko portable wala ceen wala montar bu foor ndaw sa bu dee waaja daa dem seen kër ndaw sa dem ca bitig balaa dikk waa ji mën na koo sàccuk ceen wala montar wala portable bu foor naa ko eggel gisuma ko ko quoi ay noonu dajee gel xam nga man rus naa sàcc quoi yaakaar ni du moom mu dem jaay ko ne ci xas dikk portable ba nga yoroon moom la jaay dikk doxaan la ci xaw laa reyaat dooru ñibbi siiba yooyu yéen di dugg di ko def seen ndey du wax seen baay du wax te koo gis ci mbedd mi muy waaxu kat am na ndey am na baay loolu du waxi gouvernement du def definu gouvernement yépp an gouvernement bi gornam gornamaay bi luy yoonam ci yooyu gornamaay bi këram la man a xatte ak li muy liggéey ak tigal bi mu mën a joxe kon bu ngeen toogee doon ay julit di waxantelu ñaaw te dafa aram jullit wari wax morom jëlu ñaaw ginnaaw war la wax sa morom lu ñaaw nag ngeen doon ay jullit ba noppi nag dugalu leen ko ci diine bu mën sotti ndax ngeen di wax ay jullit ngeen te seen kàddu li ñu génne ci seen gémmiñ doonul kàllaamay jullit ndax doomu aadama dangaa war nit askor la wala nit day ab taalibe la wala diw ak a lislaame waaye ngeen di wax baat yoo xam ne bu ku ko dégg day xam ne yéen ñii da ngeen di fore baati coof laag baati di diw sama sama sama sama waa ji rek coof la coof moom mooy lan coof ci géej lañu ko xam yaari jën mooy kilifay jën yi coof ak jariñ waaye yabaya ngot dara du ci jën lekk ko ñàkk pexe la kon bu ne day doon coof ci yow nga fonk ko ba nag bu dee la def lu bon di la wax lu ñaaw di la ko def nga am naqar kooku kay du coof cew daanaka kay cax lay doon cew wala yaboy da ngeen amul xalaat nag moo tax ngeen di fa yu fi di ko bànneexoo foog dëgg nag sànni ko ci àll ba xoolal jamono bi jigéen ñi kenn nga wutu la waddu jigéen ju la gën a jongoma day sol pantalon lu mu koy jiitale wala yéemul jiitale ko sér bu ndaw ñuy wax njiit lay day sol silib silib ba ni wàcc ci ndigg la fu mu la romb nga di ko séen mu foog ay teg ca kookoy taatineen la góor bu bëggee jigéen yaramu sangut jumbux baag taar baag weneen ni fang ci bit góor googu lu muy doyee si duudu jigéen day maye moom yàlla rek wala mu def moom lu ko neex ba ko mu dem yaram waaye léegi takk jeex yanant bi nit ñi mu dugg jamono jigéen dam lislaam góor dam lislaam ñëppay sas ak sobe sangu janaaba duñ ko def xoolal xale yu góor yi xele bu góor bu la gën a ngande war laa doon doomi ku baax war laa doon doomi kilifa yaramu neen lay def tubay jey rot nga ko mën naan <laughs> tubay ji rot nii lii lii moo xew léegi quoi tubay joo xam ne bu rokkee say taat ni si biti boobu tubay kay bu xewee musiban la taati neen bu xewee kay koo dajil mu um nit daa war a sul yi rafet xale bu góor da daa def ci ci biir kër ñu ne ak ah, sa waay waay xale bu góor bi mu siri sa waaye léegi ku ni jariñ ci biir kër taxaw bandi ngay muru bandi boo xam ne kenn du la wóolu dugal néegam boo duggee ci néeg bi loo jag ko sàcc ko loolu mu fi bala ginnaaw loolu yéen lu ngeen di doon ay jullit doon ay bokk ba noppi du ngeen wóolante du ngeen waxante lu rafet wax di ma ci bëgg a dugal Ablaye Wade di président yéen da a añaan rek lu waral loolu réew moo dem président ba ñëpp a ko fonk kenn ñi mu koo coxoñ kenn ñi mu ko tudd baat kenn du ko wax dara lu ko wër ta wax ñëpp dañ ko fab di ko bëgg Ablaye Wade daw Marwa ak Safa sànni Jamra dem Minam taxu Arafat rey am xaram jéggi ko dem ngir Rasulullah del si senegal mag ndaw ñu ne ci gouvernement beeg ñu ne ci lépp yam mel ni Ablaye Wade déglu seen kilifa wala déglu seen njiit mënuñu koo xamee ci Ablaye Wade xamaa ma Ablaye Wade da ngeen a goyewu rek waaye lawbe bu bu jaay mbaam dem ak sax bu dikkee lawbe ni ko alaaji pël bi bu jaay naaw nagam dem ak bu dikkee pël yi ni ko alaaji yéen Ablaye Wade gi mu def yàllaa koy fay ak seen tubaab ahlul islam waaye yéen du ngeen ko fay Ablaye Wade jommal den tàg kenn toog di am xalaat yu ñaaw yoo ko war a wax wala yoo koy def ak koo mën doon ak ku la mën a jur amoo yett amoo teggin amul ab yar amul ab xalaat bu rafet ndax ilimaan ji ku toog si buntu jàkka ji da ak ilimaan ji lu ñaaw noddukat bi war na laa yenu duur fi suuf ndax noddukat bi moo taxawali ilimaan ji si buntu jàkka ji kon bu dégg lu ko naqari laata ilimaan di dégg mu di ko naqari war na koo faj adduna ba muy baax ku saa wax buur benn baat joxoñ ko ko ndaw yi buuree ñooy seet ba ni la nuus dugalu fi war ni la ràpp tëj mbaa ñu duma la ba nga saw sa tubéy wala bu ngeen amee parasita ku ne di ku këllëkëlee yaar leen dal da ngeen a ngeen bon mbaa ngeen ñàkk xam-xam bu rafet wala ngeen ñàkk dégg mam yërmande man nag foofu laay yem Ablaye Wade man fonk naa ko guddi fonk naa ko bëccëg jataay bu ma toog jar na ma xuloo jar na mu xeex ndax man da jaral na ma xeex ndax Ablaye Wade dafa def ngor gu ne ku yàlla bindi Sénégal Ablaye Ablaye Wade dafa na la ngor goo xam ni boo goree boo amoon tool baax nga war a dem yondi ca tool ba di béy ba digg njolloor kon nag bu ngeen déggee ay julit di jaamu yàlla xamu leen ku baax xamu leen ku bon xamu leen ko def lu rafet xamu leen ko def lu yàq ah mas ngeen fee toog bu ba guddi kenn du génn si ay si noor mas na fi ni timis ku ay ma tëj la mbaam rey la muy kawar fu ba nga xam ne bii si ngoor a ko defan kooku moom ragal leen jéem ko ab séeréer la wolof nag day bañ wolof njaago day bëgg njaago bambara bëgg bambara saraxule bëgg saraxule tubaab bëgg tubaab waaye wolof moom fu mu am jëmanaan rek wolof bañ na ko da ngeen a goddut nag kuñ ko wax ngeen mer nag boo bëggee mere ma man munu leen maa rey munu leen maa tëj munu leen maa alal munu leen maa alak at mu ne ma xëyoon dëgg koo xam ne ba monde bi daj ku ko di nga xam ne wax naa leen dëgg jaamu leen yàlla taba font yi jigéen ñi ñu am jëkkër góor ñami jaar fii la sëñ Abdoulaat Mbakke magi sëñ Saali Mbakke roi du mouridisme sëñ Tuubaa pire yëkkate baat mu laa bëgg ngeen may jigéen ñi ñaari téeméer ngeen lank kandaare te boo toogee ba sa doom biir lay looy wax ka ko biiral danga ko naa ginnaaw yaa ko ëmbal ah dee fi dikk bul toog moom mu daal falu moom biiral na ndaw si tëkkul dara du joxe sondeel du joxe dépasse du joxe mbubb du joxe dara ordonnance bi ndaw si wuti sax di dikk ay yaay ginnaaw kii dama ëmbal nangu na ko ku la nangoo ko kay war naa yenu la war lépp waaye yaa ko mbal mu ne maa ko ëmbal waaye dama mu ne loo koy doyee kuy bëggee da bëgg kuy liggéey moo tax alkandeel yin dal ñoom ñi nga am loo leen jox bëgg leen am loo leen jox boo demee dañu lay jaay ngan rek goo xam ne gii day mel ni ñoom duñu laal suuf waaye bu dee yambar mu leen nax maay dem Gabon Congo maay dem Italie maa nga police maa nga central maa nga gendarmerie te kala ba ñu leen ramasser li ñu du police ñenn ñi man damaa yor parking quoi am na benn xel bu ngeen boo xam ne bii ci damaa yor parking liñ ko biiral xale bu góor bu ñax njaasee jaw xale bu yéen bu ñu xale bu góor bu ñax njaasee jaw ëmbal xale bu yéen digga mam ci dend ak ñetti mbaar ku ñax fàtt sàmb ba ko ëmbalee dafa ànd ak moom ak suba départ dem ba ca parking ba ca Padois oto yu bari yooyee mu ni ko yëpp malin moom ndekki wóyte day nax ndaw si ndaw si dema dema dem bam juróom benn weer cëmb bi daal di dangaaloo seen kër ni damay seeti ma sàmba daal di dikk salaamaaleykum waa jàmm ngeenam ñu ngi jàmm rek kanam mu ni ma sàmba sàmb laay laaj ñu ni ko ma sàmba sàmb mu naa mu ne ah kooku xam ne ko mu moom day nee na mooy borom parking bi nee na mooy borom parking bi dafa am sax benn oto bu mu a jaayi xaw ma mbuur xaw ma waa ji ko ah, man mii dama moom parking bi te xaw ma ma sàmb sàmb yow noo tudd mu ne ko ginnaaw kay moomu ko jëru maa laaj sama tur maa ngi dem déggal gis nga kooko koy laaj ñàkk na koy teggin te kooko moom moom moom parking bi moo tax jigéen ñi ñi leen di nax dong leen di xamal njariñ waaye ñi leen di teral dañ leen di teral ba bañuy dee duñu tedd ndax bëgguñu teraanga kon askor bu bëggee ko koy teral na nangu ku ko wax dëgg may leen jigéen ñi waaye mu ba mépp nag mu ngi dal ci borom kër yaay yag ndey yag bàyyi yow jur nga sa nga bàyyi ko ni ko damaa bëgg am jëkkër loo yaakaar ku dikk may ko téeméeri junni juróom fukki junni yow xamoo xaalis bi mu ko may da koo sàcc xamoo xaalisu gouvernement bi la xamoo dafa dem Paris sàcc fa cartable wala mu sàcc faalal ñëw dikk di nga moom takk sa doom bu delluwaatee ñu ne ko nuus ni ko ci kasu bi doxuus mu ne fa ba dee nga naa kiñ ko may ndeyal taata nga gisuñu ko noo koy gisee ki la nga yow benn buntu kër bu foree téeméer jox la bu foree trois mille jox la boo ko ne jàkk ne ko am naa ngénte mu fexe ba jox quatre mille wala deux mille cinq cent kii moo gën xaalis bu am bu ñu xëpp mu jal ab jal ci sa kanam boo ko lekkee xamatoo lañ ngay lekk doomu aadama dañoo war a am xalaatul islaam man ñu njëkk ña da nga def salaamu aleykum ñu ne maaleykum salaam ndaw su ne demal nuyu saa bàyyi nga nuyu bàyyi dem nuyu sama yaay nga nuyu yaay nuyu bàjj nuyu maam nga toog bàyyi bi ne aw ah, waaw yow na nga def nga ne maa ngi fi de bàyyi nijaay lenge waaw mooy sa nijaay lenge moog saa yi bokk mu ne ah waaw yow dama laa gëj a gis nga ne man damaa jàng woon alxuraan ah da ngaa mu ne ah mu ne maa mokk mu ne waaw waaw waaw ah, góor luy tànk mu ne ah man dama yor mu sama yaay sama yaay moom rek la saa bàyyi fóot moom fóot sax léeg-léeg ma dimbali ko damaa bëgg a dimbali ma jabar laa bëgg mu ne ah boo demee na woo sabaay nu fi ñëw mu dikk ni bàyyi bàyyi ni la béyk mu ne ko sama nijaay ne na a ñëw fa kañ la wax mu ne ah tey ak suba ak si bi rek saa boo mënee dem ñum fa bàyyi toog ba lépp mu dem julli fa takku sànn nijaay ni quoi ah, sa waajur da laa bëgg a may doomi diw mi boobu ñun mbokk na laa takk léegi nag kenn takkatul sa mbokk waaw mbaam takk na fos gëleen takk xar xaj takk bëy bëy takk tilli tilli takk muus muus takk golo lu a takkante baa ngi si am na ñoo xam ni sax dégg naa ñoo nga de dem përi wala yi ñu takk seen doomu ni jaay ñu jële fa sagaru tubaab boo xam ni dikk dégg mam mu ne xaw na ci biir ñi buñ toogee mel ni golo gu ne ci biir nit ñi du am doom dan dara waa ji gor ba dee rek waaw tubaab bi takk bagage sa ñibbi yooyu lan moo ko jar dangay ngay takk sa doomu ni jaay am moom doom nga tudd ko sa ndey mbaa sa baay muy doom too xam ne ji ëllëg di na doom diw ji diwoo ko fi baax diwoo ko jur diwooy ndeyu diwooy baay ñu mën koo xam waaye tubaab boo xam ne boo ko tekkee am moom doom sax alku nga ndax moom booy dee muy takk bagage yi doom yu góor yi moom kër gi muy jaay ko départ ak alal ji ñibbi tugal loolu lan moo ko jar kuy takk da ngay toog sa mbokk gis nga ulama yi ngeen di xool ñoom bu ñu takk ña du ñu takk doxam mbiyam ñu takk ku dul seen mbokk bu ñu takk ñu bokkul aw xeet yéen nag lu leen yéen di takk ponkal mu jóge Paris di tubaab xamula war na am doom xamula war sa am doom nga takk ko di nga ne ñu ne diw de jabar tubaab la yor waaye lébi noonu mujj jamono jamono si ñuul ya jamono si ñuul ya mujj jamono mooy la jënax yu weex yàlla yi di lëjal te nit ñi jigéen ña dañu fab janax yu weexe dugal ci kaaf di jox muy lekk di jox muy naan yor aw yat nag tuglu janax ju ñuul ji ni naa toog fi ba janax ju ñuul ji génn ma taj bopp bi jigéeni Sénégal yi ñu bare bare bëggatuñu jëkkëri wolof tubaab rek moo tax tubaab yi genn wal gépp tubaab i la ñu àndal di moy yàlla waaw jigéen du la gën a jongoma man daaw dégg naa benn tubaab boo xam ne ci mbuur bu dul mbuur bi ndakaaru dafa jox ndaw si ñetti junni séeg moom ba noppi jox ko ñaari junni ni ko xaj bi day séeg yow yu bon yooyu mooy lan yooyu dafa araam dafa ñaaw ah te boo ko waxee kat numéro la loolu kenn waru ko wax lu bon ku ko def ñu wax ko yàlla dani ñam xam-xam bu ñu noppi waaw nee na bu ñu noppee yomal xam ñoom lay dëkka tàbbal sawara way lun yow ma isin fabi ay addisun nee na ñi am xam-xam noppi ñoom laa gën a mere man yàlla ñu ne tax mun nañ wax suma dëgg gi fa sakkir inna fati sikra sey sakku man yax saa wala tijann ba lu si yasra naar kubla suma laa yamutu fiha wala yaxya ngeen lànk tandaare bañ wax te yéen yéen a ngi taaxuraanaka wax ay waxat rajo bi lu ne lay wax lu ne la rajo bi wax ma yor li nga yorog may dëgër sa doo daanoog lu ne ngeen di wax ci àdduna waaw bu ngeen wax nag yu ñaaw yooyu nag ñu war a wax ci diine nag ñu leen yu ñaaw yi ngeen wax bariñ ko bu ngeen bëggee jàmm li jàll la jëf ju ñaaw wax ju ñaaw def lu ñaaw muy indi balaa dégg naa sax ngeen di wax bay tudd ay njëréer njëriñ moom balaa la waxuntuma na ngeen di ci tudd dégg mam kilifa gi moom réew mi naan njëriñ di tudd Ablaye Wade yéen a bon yéen a goree di Ablaye Wade moom yéen a yem ci njëriñ yi njëriñ ñëw na fi ñaari yoon bii ko ñetteel ba mu fi jëkkee ñëw booba sëñ Mourou Moustapha Mbacké fi ne ba mu fa tegoo sëñ Fallou fi ne sëñ Fallou tey ni ko njëriñ ne coow waay njëriñ am ngelaw ñoo njëriñ fu ko neex dem ngelaw fu ko neex dem ñoo bokk benn yax njëriñ ñetti yax la ngelaw ñetti yax la balaa ñaari yax la baala ak laam ak liif gaaj njëriñ jiin la ak ñaari raa waaw ngelaw keef la ak laam ak waaw ñoo yem ay yax ngelaw fu ko neex dugg balaa fu ko yàlla wàccee fa ngir fu ko neex dem seen wax yu ñaaw yi wàññi ko ngeen ragal yàlla gëm yàlla te jàmm yàlla te bàyyi waxantalu ñaaw yàlla ne amal xam borom alxuraan day jàng ba dënn bi fees ak alxuraan nga yaakaar dama koy lakk boo rek sama alxuraan déedéet dama naaru seet sama alxuraan denc ko àjjana fag jëmu jooj yàlla ko ko sawara loolu la yàlla wax kon boo jàngee tubaab yaakaar ni doo dem sawara yàlla ne sa jàng tubaab woowee dama koy rucci wala ma boole la ak moom lakk sawara ndax man tubaab daf maa weddi weddi sab yoon tubaab mën na ni laa ilaha illallah waaye du ni muhammadu rasulullah te yàlla ne génn gu la mu tax laa ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah yàlla ne loo jaamu-jaamu yàlla boo faatoo ma lakk la ndax laa ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah mooy ceeb bi àjjana soo mënta julli mun laa war mun laa def tal sax saxoo ko soo dee yàlla dugal àjjana ndax yàlla nee na yonent bi sama xarit la mooy man maay moom li mu bind lépp moo tax rasulaay mooy saydi kulli man xalaxtoo nga xam ne moom ci boppam bu ko waxee wax bi mu ko wax da koy jàpp xalaatu bànneex ci bakkanam doomu aadama day war di xalaat xalaat bu rafet di wax wax bu rafet di def def mu rafet ku ko xool bale ko ci yiw yi léegi jigéen ñi watuñu góor ñi ci ban message nga koy xame xale bu góor ak bu jigéen mu ñu taxawee néew ñoon nan ànd dem kër ga yaay gis bàyyi gis xanaa ñu taxaw ñoom ñaar ci benn koñ ndey du wax bàyyi du wax fu ñuy reere ak fu ñu war a aw ndaw si ni ko yow yaay bañ góor bu bañ a tuur kay mu fi bam na loolu jàll ngay jigéen may jigéen may góor war nañu bala noo mën a bokk toog ab lal alxari yëpp waaye kenn du toom alxari kenn lu la neex def jigéen jigéen kay bu jàng góor góor naa ko tegal sa loxo sama mbag ma teg sa loxo sa yu tegante la ñuy waaj nga teg ndig mu teg ndig nga jàpp bëmëx muy bëmëx mu naan bësël bësël kay ku ne xam ne boo bësee fan lay jëm bësël joo ñu wax nag bàkkaar day yokk ci ñoom njaaloo guddi njaaloo bëccëg mag du wax ndaw du wax te ko am xalaat wax ñu mer la ba jëpp la buñ la na a naree rey la waxtaan wi nag foofu lañ ko war a yemale am na beneen bande bu génn dàq boobu dañ ñu leen ko wax tey mbaa déwén mbaa déwén jéeg mbaa saabu lu demee studio waxtaanu koog yéen Talla Diagne mi ñu ko defal nag mu saadi xëy waaw sama rakk la sama xarit la mi ngi ànd ak dégg maam may Yaasin ànd ak dégg maam ku ñax Lamp Fall dégg maam Talibe Seero Fall dégg maam ànd ak ak ay xaritam ak àndandam ak ku ñox dégg maam aas ma ca penku ak ku ñox dégg maam Mara dégg maam di booyam bi koy jaayil bandi ñoom ñëpp yal na yàlla yokkaw fan. saa borom ma ñaan xaritam bi ñuy wax góore jaxate ak xaritam ak àndandam yépp nekk France ñi ne tugal ñi ne Gabon ñi ne Congo Espagne ma ñaan. saa borom nangu leen dafa leen ndam ak yërmande ak sama xarit ñu di ko wax Sidi Ñaa ca New York maa ngi leen di gërëm di leen sant sama rek sama doom bu ñu wax ba jaxate ñu naa ko bal jaxate mu yor boo xam ne bii ci biir Ndakaaru magasin bala ci ne ay effet rek la bu soo taat xooli ko sax boo demee boo ko fa diyee mu wér soo demee sax am xappatiku mel ni bukki bu bukki matt soo ko ci di wër yaram wa lu mu yàqu-yàqu am na fa biteel yoo xam ni dañ la ko jaay ci njaay mu rafet ko ci boppam sama rek la sama doom la waaye sët la ci taala jaañ ndax góor a jaxate taala jaañ ñiy defar band yi kilifa ma ni jaay ma ma bëgg na ñu àndu doon benn bokk ndey bokk bay li ma leen yéene yàlla yàlla defal seen ndam lu ñu ma liggéey loog lu ñu max ñam ca grade boo xam ne bii ak ma yaasin ak ñoom ñëpp ak ay secrétaire yal na ci sa borom def ndam ci barke Serigne Fallou mu ñi am na Serigne Saliou Mbacké yal na fi yàgg Serigne Modou Aminta yal na fi yàgg Serigne Modou Ablaye Fall yal na fi yàgg ak Cheikh Ndigal ak képp ko di borom l'islam Serigne Mansour yal na fi yàgg yal na sa borom def Sénégal jàmm lépp luy mu siiba jëm si Sénégal yal na ko Serigne Touba Sel ak El Hadj Malick ak ulama loxotaa bi amin ya rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barke Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Rafa